ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info parce que loo xam ne yaa ngi koy def ti li ngay def musiba lay jur mais jarul def pour nga yàq kii jaru ko parce que buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko partagé nga am ci junni wala ñaari junni wala lekk nga ko ba mu jeex mais bàkkaar ba des na fa kon ñi nga xam ni ñuy jël yu bon di ko teg ci télé yi di ko partagé nit ñi di ko jàllale ku jàllale lu bon rek yaa ngi ko defee am al faa'il wal maf'uul wax naa nag démb wala ki démb benn gars yi di ma laaj ne ma waaw yu bon yi ñuy jàllale may ah waaw nag institut yi nag ñoom bu amul bu ñu am xaalis loolu amul ay damay gàmmu damay conférence dama lii loolu lañ ci teg loolu ko teg li ñuy teg mooy lu garaaw nga wax wax ju garaaw ñu teg nga wax wax ju juunu ñu teg nga wax wax ju doy waar ñu teg ñoom daal yooyu lañ waaye ay kii kii duñ ko teg duñ ko teg mukk waaye nag li am solo mooy bul bokk ci ñi koy def bul bokk ci ñi koy wax ci bokk mukk parce que ginnaaw xam nga ko ba laaj ko bañ tontu la ko waratoo ji bokk ah man de nañ ma xam ci lu baax man nañ ma xam ci lu baax waaye xam ma ci lu bon yàlla tere yàlla tere man daal nañ ma xam ci lu baax naa sii ci lu baax waaye lu bon rek ñu jël ma tëj ma gaa yi ñaan njekk nangam nangam ma génn loolu amul solo fexeel fexeel ne ci lu baax lu bon nga bàyyi ko fële bàyyi lu bon fële parce que vidéo bi nga def siiw nga ci eh, xam nañ la ci jeex na mais xam-xam bi du continuer xam-xam bi du continuer dañ lay xam nii rek jeex na da ngay def lu defu wax lu waxu ok loolu mooy loolu mooy mbir mi loolu mooy mbir mi waaye daal <laughs> di ko di ko di ko di ko def noonu daal doxul loolu daal laa ci jamono ji mu waaye génnee ba noppi xam. léegi waajur boobu nga jërëjëf wax jàngu tontu nga tontu tontu ko wax ji su yaroon doomam du ci sonnaat waaye nag boo ko yarul mu sonnal gis nga inna min aswaajikum wa awlaadikum fitnatun ak adduwun lakum yëpp ñëw na dafa am leen soxna yoo xam ne sa noon lañ duñ sa soxna sa doom yoo xam ne say noon lañu am na doom yoo xam ne fitna li soxna yoo xam ne fitna li yëpp yàlla indi na ko doom dañ koy defar ba mu jekk nga yar ko su ëllëgee du dugg ci yenn yi waaye jël sa doom yaroo ko ba mu dugg ci yenn yi nag yaa ko def nga naan damay ñaan njëkk damay lii amul solo weñ weñ gaa nga bañee ca mbàñña xam nga su fekkoon ne yar nañ xale yi teg leen ci yoon loolu lépp du am waaye yaruñu leen teguluñu leen ci yoon moo tax li am am mënoo ci dara gis nga loolu ñuy wax du tax sax xale yi faale wuñ leen sax faale wuñ leen bañ waree def dañuy waroon jóg ñoom voilà hmm? waaw kay jërëjëf sama secte la ñu nekk mais dafa am yenn yi nga xamante ne tout le temps daf ñu ciy fekk muy actualité fii groupe bi nga nekk muy des médias am na temps yi nga xamante ne euh, nemmeeku nekkul bi moo nekk mbirum euh, Ahmed Aïdara bi nekkoon fii euh, journaliste mu démissionné mais avant loolu gisoon neen mbirum Sénégal bi ñu bëri dinaa looloo taxoon mais ñu jékki saa gisaat tamit ay vidéo di génn ñu ne xëy na loolu la jàpp ndax Sonko Adji Sarr bi waruñu ko fee wax ci loolu daal ma lay laaj fekk euh, Ahmed Aidara xam ne am ngeen ah démissionné de man de billahi wallahi tallaay sama saal laa toog euh, bàyyi tuuba gi wax ko bàyyi tuuba gi man du ma seetaan du ma seetaan télé du ma seetaan télé du parce que damay bañ lu yàq sama xol billaahi bàyyi Touba ma ko ay dara dafa bàyyi ma ko ah bon loolu yëgu ma ko ah loo yëgul noo cay waxee ah su ma koy yëgoon nag man laa wax léegi lii mais yëgu ko bi ci des nag bi ci des sax yëg ko bañ ko yëg am na ba pare jeex na jeex na ay ni ci di wax ak di ci commenter rek jaru man daal xaw bu mbés bu ma xamee lu leer nag boo waaye fi mu ne nii moom xaw ma ci xaw ma ci lu leer daara xaw ma ko ci démb bay tuba gee ma ko wax <laughs> ba tey dégguma ko laa ko déggee ci yow laa ko déggee ah waaye ñi ci wax dañoo bëgg a tardé rek dañoo bëgg a tardé seen bopp parce que dafa am yoo xam ni sax même bu amoon bu ma ko xamoon duma ci wax du ci wax dara parce que du yokk dara du wàññi dara du la yokk du la wàññi dafay mbir yoo xam ni doo xam au fond mu demee nga wax ci tooñ jàmbur baa nga wax ci bañ tooñ jàmbur doo xam au fond mu demee su fekkoon dañ lay wax nag mbir mi nii la demee nga mën a wax ci loolu waaye lu ñu wax dañuy cuq rek catle rek la ñuy jël xoolal ko aywa boo defee ñu ngi gërëm yëpp rek dama sonn day gërëm ma rek yooyu yëpp duma ci dugg dama sonn moom daal wax naa leen nañ leen demee xel te deme sago nañ leen demee xel te deme sago nañ demee xel demee sago xel ak sago loo ko demee waaye cëy boo bàyyi xel maa nga bàyyi sago da nga xëy mat sa baaraam réew mi wax lañu man wax rek ñoo xam ne am na ñoo xam ne wax rek la def bu fekkoon dañuy wax farata bàyyi wax farata bàyyi mais lu ne la ñuy wax ah boo nekkee ci réew moomu nag da ngay xam li ngay def nañ leen góor góorlu rek ndaw ñi nag nañ góor góorgóorlu ba a yàq nañ góorgóorlu ba ñu yàq nañ góorgóorlu ba a yàq wasalaam ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te les minutes de l'info